di nuyu monsieur le ministre de finance monsieur le ministre économique monsieur le ministre du travail di nuyu aussi tamit seen collaborateurs yi ngeen àndal ak seen collaboratrices yi monsieur ministre ñu ngi lay remisser réew mi di la féliciter ci doxalin bi nga xamante ne am na ci Covid bi li nga xamante noonu ngeen doxale te li ko waral nag ñi sa ginnaaw ñi nga xamante ñu ay politiciens ay techniciens leen ku sama la directeur général du budget le directeur général douane le euh, yaakaar naa ni borom xam-xam yu nekk ci ginnaaw ministère te du ñuy politiciens ñi muy amee différence ñi nga xam ne dañuy nekk ci ginnaaw ministre di politique mooy lii. kon ñu ngi lay féliciter di leen féliciter wax di encourager ak jigéen ñi toog fee muy madame Diakhaté ñoom euh, le ministre fi may ñëw yow le budget général 3226 milliards recettes 3969 milliards virgule 9 dépenses su déficit. 749 virgule 743 virgule 9 milliards déficit boobu monsieur le ministre bëgg nañu xam tey jii ku ne xam na ne recettes yi dépenses moo ko ëpp bëgg nañ sa xam ay explication lu tax loolu am monsieur le ministre le recette fiscale le déficit rapport 2020 110 milliards virgule 5 2020 deux 26 mille 26 euh, euh, euh, milliards 75 cent 2021 cinquante 56 milliards virgule 4 milliards kon dama jafe ni foofu li ñu doon wax rek ci rapport bi dikk na tey ku ne xam na ni tey domaine li mu war a dugal dugalu ko li nga xamante ni mooy tey jii douane ñu ngi leen di féliciter yaa 49 pour cent la ñu dugal ci budget national kon ñooñu jàpp naa ni war leen a delloo njukkal ndax ñooy soldat économique mais douane mais domaine liggéeyuñu liggéeyuñu monsieur le ministre loolu moo taxoon ci commission bi ñu wax la ni domaine liggéeyul ndax ñàkk liggéey bokk na ci un déficit boo xamante ni am na cent dix milliards ci loo xam ne war nañu ko encaisser encaisser lu du nekk di politique ak di taxawaalu ak di jël suuf si di ko jaay te loo xam ne tegul fenn di ko pasar pasaree jàpp naa ni mun ñu la fal 2019 muy directeur domaine Mame Boye Diao 2019 ñu fal la tey. nga nekk maanaam fonctionnaire bi ëpp alal ci Sénégal di dawal ñetti oto yoo xam ne cent cinquante millions lay jar doo xëy si doo liggéey si bu pare jël suuf si di ko jaay loo tegul fenn mën naa laa wan ay ay leeral yoo xam ne si loolu monsieur le ministre boo jëlee une notification boo xamante ne le 20 mars 2020 si la ñu seen notification ak Mame Boye Diao mu rattaché ko si commission bi nga xamante ni commission euh, bi nga xam mooy contrôle 19 avril 2018 te boobu ku ne xam ne nommé gun ko notification baa ngi nii ñu jël ko di ko jaay di jaay suuf si di ko pasar pasare Sénégal loolu moo tax loolu mënut a avancé yow mi nga xam yaay ministre di wax ak président de la république il faut que ñu jël ay matuwaay ak ay responsable ci li nga xamante ne mooy domaine bu ñu bëggee li nga xamante ni mooy mbir mi jaar yoon du ma la wax nag lenn loo xamante ni awma ci preuve preuve yaa ngi nii notification yaa ngi nii signature yaa ngi nii kon loolu bokk na si loolu monsieur le ministre boo jëlee tey jii le total de dépense de finance 2020 37 milliards 370 milliards virgule 9 boo jël 2021 3969 milliards virgule 9 am na augmentation 260 milliards francs CFA bëgg nañ xam augmentation yi aussi boo jëlee bis président de la république la augmentation engagement EE e nekk na 49 milliards mi ngi nekk maanaam taux 131 virgule 1 pour cent les déficits crédit paiement mi ngi nekk maanaam moins 27 virgule 8 pour cent bëgg nañ xam loolu lan moo ko waral boo jëlee assemblée nationale 1 mi ngi nekk augmentation 212 virgule 3 pour cent CP nekk maanaam plus 9 pour cent augmentation bëgg nañ xam aussi lan moo ko waral ndax jàpp na ni assemblée nationale tey jii li nga xam moom lañ wax ni moo tax ñu war a yokk budget bi wax dëgg yàlla jëru ko boo jëlee li nga xam mooy conseil économique social mi ngi nekk augmentation CP 14 virgule 5 pour cent boo jëlee conseil économique des collectivités territoriales mi ngi nekk maanaam une augmentation 635 35 euh, euh, pour cent boo jëlee CP mi ngi nekk maanaam plus 11 virgule 5 pour cent kon yaakaar naa ne augmentation bi sa yooyu il faut que ñu xam ni loolu amul benn njariñ li ko président Sine Cheikh doon waxee askan wi fi ñu toll waru ñu yokk ay augmentation ay yoo xamante tey dañ ko waroon tas ci réew mu normal ndax conseil économique social li tax ñu def ko président la République ku ne xam ne nee woon bu ñu jënd ay oto ñu ngi jënd ay oto en tout cas si vous je nuyu seen collaborateur yëpp di nuyu euh, honorable député yi fi toog yëpp monsieur le ministre comme ni ko ñëpp di waxee rek ñu ngi lay féliciter di féliciter l'ensemble des ministres yi fi nekk yëpp ndax xam nañu lan ngeen daj ci commission des finances bi ñu koy def depuis quinze jours man nag damay indi rek ay leeral yoo xam ne dama ko bëgg a indi ak yenn apport yoo xam ne il faut ñu am ko dans le cadre de li nga xam ne moom la ñuy liggéey monsieur le ministre dans le cadre des recettes budget recette da ngeen am projet yaatal projet yaatal bi ngeen def ñu ngi ko débuté Ouest Foire actuellement huit cent personne huit cent et quelques personnes la ñu recensé ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci projet yaatal bi pour augmenter assiette fiscale bi mais bi ñuy wax ak ñoom dañ leen waxoon ne que dañuy régulariser assiette euh, euh, fiscale bi ba pare réguler réservoir amatul aspect domanial bi lii am nag mooy actuellement aspect fiscal bi c'est réglé ñoom ñu ngi fay mais aspect domanial bi c'est pas réglé donc day indi loo xam ne nit ñi day day mel ni comme dañ leen doon naxee dañ leen réglé seen aspect domanial mais réglé wuñ seen aspect fiscal aspect fiscal bi rek lañ jël en considération aspect domanial bi kenn kenn réglé wu ko loolu aussi bugg naa nga xool ko ak service yi. pour que ni nga xamee aspect fiscal bi dem na aspect domanial bi demee noonu parce que loolu aussi dans le cadre des demandes yi am na ay tax ak ay frais yu ñu war a fay yoo xam ni ci la bokk beneen bi ci des je reviens sur la douane la douane c'est la euh, moom mooy gendarmerie économie parce que ñoom ñooy surveiller suñu économie ñoom ñoo ñuy protéger ñoom ñooy fexe ba suñu économie lu ci dëng wala lu ci bon war a dugg te du si jaar moo tax ñu bëggoon ngeen renforcer l'ensemble des frontières yi zone frontalière yi ñu renforcer seen ay moyens pour que au moins ñu nekk en sécurité ba pare mun a surveiller normalement li nga xam ni moom moo war a nekk loolu aussi moom mooy deuxième point bi may wax ci aspect boobu beneen aspect bi monsieur le ministre euh, damay wax ci participation wu sous-sol bi ci budget Sénégal parce que bi ñu jëlee euh, euh, budget des mines ministère des mines on s'est compte que ni ci extraction yi budget bi ñu ngi participer ci 23 milliards sur l'ensemble du budget budget bi 4 mille 4 mille 500 milliards la mais bu ñu xoolee sous-sol bi rek ci seen aspect trois milliards rek lañ ci am comme incidence ma yaakaar ni loolu am na ay point yoo xam ne war nañ ko xoolaat benn bi mooy damay jël exemple ci cimenterie yi cimenterie yi ñetti cimenterie moo am Sénégal Sococim Dangote ak Layus boo jëlee seen production annuelle. Sococim mi ngi 3 millions 500 mille tonnes Dangote mi ngi si 1 million 500 mille tonnes Laïs mi ngi si 3 millions de tonnes mais bu ñu jëlee sur le plan extraction ak nit ñuy fay ñoom ñëpp kenn ku si nekk kenn ki 152 millions lay fay kenn ki 125 kenn ki 123 ça veut dire que ñoom ñett ñëpp bu ñu leen boolee 400 millions la ñuy fay donc ça veut dire que y a un problème parce que extraction bi production bi ñu am li ñu ci war a fay ci ci. carrières yi yi nga xam ne moom la ñuy utiliser taxe bi c'est 500 francs le mètre cube imaginez léegi 500 francs le mètre cube nga xool loolu ça veut dire que foofu contrôlé wuñ leen ni ñu leen war a contrôlé parce que bu fekkee ne que participation au ciment bi bu fekkee ne li ñuy jëlee ci suuf si 60 pour cent rek lay doon tey jii kenn si ñoom ku ci nekk war nga li nga fay war nga fay 10 fois plus donc loolu laa bëgg attirer sa attention pour que la prochaine fois service yi nga xam ne ñooy contrôlé ji les cimenteries au moins sur le cadre yi nga xam ne li ñu extraire li ñu extraire ci suuf si au moins mu nekk loo xam ne day yokku waxoon naa ko aussi ni mu valable parce que GTO ñi ngi à quatre-vingt-dix mille tonnes te il paye presque neuf milliards. donc y a une très grande différence ça veut que foofu aussi moyen la boo xam ne pour ñu yokk ay recettes yi nga xam ni moo war a nekk dans le truc du Sénégal dans le budget du Sénégal parce que dama yaakaar ni suuf si li ci nekk. tant que amuñu demuñu ba nga xamee ne que ñoom dañ seen participation ci budget bi dina am doole tout le temps dañuy nekk ci ay demande de prêt yu dul jeex yu dul jeex loolu moo tax vraiment ma bugg attirer sa attention pour que loolu au moins ñu bàyyi ko xel seet ko saytu ko ba nga xam ni point yooyu yëpp bu nekk ay point yoo xam ni day nekk njëriñu Sénégal je vous remercie. Et la loi de règlement n'a jamais été votée la même année d'exécution. Ça aussi, vous le savez. Vous également parce que vous êtes président de commission, que les projets de loi de ratification ont été déposés à l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'au terme de la Constitution, que ces projets de loi de ratification, la seule obligation qui s'impose au gouvernement, c'est leur dépôt. L'examen des projets de loi de ratification relève de la stricte compétence de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Nous, parce que nous avons entamé une session budgétaire, un marathon budgétaire, on passe le budget et après, on va examiner les projets de loi de ratification. La ratification des ordonnances sur, les réaménagements budgétaires, c'est une loi de finances rectificative. Et ça aussi, vous le savez. En réalité, mon cher collègue, vous n'avez pas d'argument, vous cherchez des arguties. Mais ça, ça ne peut pas passer. Il faut que nous travaillions parce que l'œuvre qui nous appelle ici est une œuvre hautement républicaine. Et les Sénégalais nous observent. Les Sénégalais n'attendent pas ça de nous. Les certains Sénégalais attendent. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été trop magnanime et trop compréhensif. C'est le dernier jour, sur le vote de la loi de finances, qui, elle, est la loi qu'il faut faire passer des motions et des questions préalables. Jamais dans l'histoire, il ne peut y avoir de motion préjudicielle ou de questions préalables sur des considérations générales. les considérations générales n'étant pas le texte de loi. Or, le règlement intérieur a été bâti sur la base de l'examen de textes de loi. Je pense qu'à vouloir être trop magnanime, on risque aussi d'avoir beaucoup de retard. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous en conjure, nous avons beaucoup travaillé pendant plusieurs jours. Les collègues se sont épousés, toutes sensibilités politiques confondues. Ce n'est pas pour venir. Ce matin, ça donnait un spectacle d blocage. Ceci ne peut pas parce que vous l'avez dit, la Commission, en tout cas, souhaite une poursuite de nos travaux et que, franchement, très chers collègues, motion préjudicielle pour motion préjudicielle ne vaut. Cela ne saurait prospérer. Travaillons, débattons de ce qui doit se faire et à partir de là, ce serait argument contre argument. Mais face à des arguties, on ne peut pas proposer d'arguments. Monsieur le Président, je propose la poursuite de nos travaux.